xeyna gudi guddi na me bu teree nañ waxtaan ci actualité bi parce que gaay aussi ñu leen jaaree yeen ñëpp di leen bégé di leen nuyu encore une fois lepp li nga xam dafa lëndam rek té lérul ci seen nopp wala lérul ci seen bëtt wala ci seen xel ñun dañoo fas yéene taxaw léralal leen ko parce que ñoom mun nañ wax waaye tamit séquñu ak ay dof séquñu ak ay ngaaka aussi donc euh, le may de remercier la diaspora surtout les sénégalais du Canada les sénégalais de Montréal nga par milliers ci de Montréal marche yuru, le nom de Ousmane Sonko réclamer la libération de Ousmane Sonko je pense qu'il n'y a pas un Montréalais un euh, Canadien, vous avez les vidéos, Sénégal. photos, des photos, des photo, donc Sénégal, le monde, sait que le Sénégal, un régime dictatorial, a tek plus de 800 personnes, ray plus de 70 personnes, a va de massacrer la population, de les di teg dictature di euh, fitnaal sénégalais yi di restreindre ay droit di restreindre internet bi di restreindre TikTok bi et cetera ba pare boole ci euh, ne Sénégal kenn du wax kenn du yëy bi kenn di joxe xalaatam donc tëj Ousmane Sonko ray doomu sénégalais yi ba pare génn di fen fen nag moom lu ne mun ngeen ko def ok mais di ngeen dem ces pays muy Juan Branco muy Mola Branco dama ne pays di ngeen ci dem yéen mënu leen ñu jiite nii ray plus de 65 personnes tëj plus de 700 personnes disparaître loo François Mancabou disparaître loo DJ Badi, disparaître loo Fulbert Sambou tok Ousmane Sonko tëj ko ci kase yi ray ay doomu sénégalais téré lan ay bal fétal bo len yaakaaree ne mën ngeen cee génn ni da ngeen di nax sen bop barki sayidina mohammed do len ci génn dinañ len traqué ba ci sen buntu bammel yi di ngeen xamni yeen paré gu len sax ñu nak yeen ba sen buntu bammel yi billahi bo len dé dañ len lokati ñaf sen mam yi boo leen ci digënté bi sax dañ len lokati bëss bu ngay gis ay new yi ñu loxati carrément di leen fa bàyyi moy kenn ci yéen nañ rek ba dé Antoine ñàkk jom wala Macky Sall wala Jabar wala keneen nañ joom rek ba kenn dé ci nga xana dinañ ñu tégal ay carte corps fofu ñuy carte new parce que saa dinañ leen sulli ñap seen mam yeen ngeen pour vous penser que da ngeen ni tirer ay bal fatal ray ñu tej ñen ñi da ngeen di dissoudre parti da ngeen mëna dissoudre parti mënu leen dara ci dissoudre parti bo leen waxé ni mënu ngeen dissoudre parti da ngeen di kàcc barke Seydina Mohamed da ngeen di kàcc te bés bu ñu yeggee ci ultime phase ngeen di xam ne ñun pare nañ ay parti waxutuñ ci dara graw defal leen neex ñun ñu ngi leen di xaar ci last line bi the last line of defense dernière ligne de défense bi barke alxuraan xaw ma doo leen am jàmm seen yaay yi du am jàmm seen baay yi ñu am jàmm seen mbokk yi ñu am jàmm élection du am fenn wax nañ ko ci diaspora bi partout élection gis ngeen ambassade yëpp tëj nañ ambassade yépp ci dara amatu fi boy dem nañu rajaxe l'ambassade du du Sénégal à Ottawa rajaxe l'ambassade des États-Unis l'ambassade du Sénégal en France partout cocktail molotov seen nday yéen boo leen yaakaare né yeen di ngeen ci gën ni billahi Ousmane Sonko dina tang melni ni patate bu tang jër ci sen gemmi tang jër bu leen négocier dé yeen ngi commencé di taw parce que dégg nga Antoine naan waa décider nañ ko mais bu ñu demee ba waxtaan entre temps ba nangam déedéet déedéet yéen taxaw leen fi ngeen taxaw rek ñun ñu taxaw fu ñu taxaw Antoine ñàkk jom di duul man tey laa dégg tur boobu nee na cocktail molotov café Touba lañ koy wooye <laughs> cey papay Antoine ñàkk jom nan la def ba biiral yaayam cey papay Antoine ñàkk jom mooy doome xaram an bàyyi Antoine ñàkk jom nax yaay Antoine ñàkk jom ba biiral ku muy doomu biiral kim ñu indil amul ku gën a doome xaraame Antoine ñàkk jom ak mun a fen nee na day jeex day boole nit yeeg Touba nee na neew kan ci mooy wooy cocktail molotov café Touba maa ngi koy doog a dégg di jàngal pastif <laughs> nee na mi ngi jàmm jàngal pastif quoi <laughs> Antoine ñàkk jom de léegi na wax pastef comme café Touba moom mooy cocktail molotov pastef bon bon la ñu woowee Pastef kon legui dañ leen bon bon moy Pastef mbedd mi street bi bon Pastef lañ koy wax gaay yaangi gaay bi dafa Pastefu moy dafa tux ay bon ba jox ma Pastef bi mbedd mi en tant mo ñàkk jom te mun a fen kan ci yéen mo woowee cocktail molotov <laughs> café Touba saram wóor mais bay Antoine ñak jom mo ñaf ndayam ki moy doome xaram ki bu dee du dee na fan yi passé yalla ngi mbugal ndayam ndax ki mu ñu fi indil soo Antoine mun na fen ma waxati dara Antoine nee na waa big ñoo jàpp Juan Branco <laughs> frontière Sénégal ni bajo nag kum neex du kum neex moo mun a fen Juan Branco ñu jël ko ci guddi balaa ñoom ñoom ñuy ñuy ñëw génne ko fële nga xam ni moom mooy euh, lu mu tuddi Lac Rose rawale ko yóbbu ko Rufisque mu dem ba Rosso Mauritanie garde côtière waa Rosso Mauritanie ñoo ko jàpp delloo ko Sénégal jox ko waa Sénégal Antoine nee na waa bib la nee mu ngi remercier waa bib gars yi di tàccu <laughs> kon waa bib ñoom ñoo nekk fële waa waa bib ñoom ñoo nekk euh, Rosso Mauritanie ñoo nekk Mauritanie di garde Antoine euh, Antoine ñàkk ñoom moo a fen mu ne day remercier <laughs> waa waa waa waa assemblée doome xaram bi di tàccu <laughs> barki Seydina Mohamed bib jàpp ñu and euh, euh, Juan Branco Juan Branco bu mu jógee fii mi ngi waroon jëli mi ngi waroon jëli euh, lu mu tuddati bato bi dafa waroon wàcc Rosso Mauritanie jël oto dem lu ñu koy waxee Nouadhibou loolu lañ programme woon bato bu ko doon yóbbu Nouadhibou la ko doon xaare mu rëcc Sénégal yëpp dugg ci gaal gi dem ba Rosso Mauritanie gars yi xàmmee ko foofu boole ko ñu woo euh, waa bib ñu ñëw indi seen gaal daw ñëw indi seen seen gaal boobu noonu bu weex bi ñëw jël ko ñu ne dañuy remercier waa bib <laughs> waaye loolu waa bib ñoo ko jàpp génn sama kër dem ta di dem sama yoon kële jàpp ba fële Mauritanie delloo ma ñu ne waa bib ñoo ko jàpp nu nu ko bib jàppee bib bib nu mu ko jàppee bu doon bib kese la am instant Juan Branco yegg na këram bu doon bib kese la Juan Branco romb na bib ñuy tux yaa mbaake naan sàngara man de seen carrière xamuñu gàtt toog di taxawaalu mu naan bib corps spécial <laughs> dama ne corps spécial bi lañ bàyyi foofu jël Juan Branco balaa ngeen di yegg si balaa ngeen di yegg si Rose génn nañ ko foofu ba mu jël gaal ba dem Rufisque Rufisque la jëlee gaal googu ñu solal ko yére ba mu dugg ci gaal gi ba dem fi nga xam ne mooy Rosso Mauritanie ba waroon après jël foofu oto pour oto bi doon xaar pour mu jël oto pour dem fii nga xam ne moom mooy Nouadhibou Noua Nouadhibou fa la ko bato bi doon xaar bato mu war bu mu waroon àndal ngeen ngeen ne jàpp ngeen Juan Branco quoi. kan moo jàpp Juan Branco Sénégal tontu leen ma kan moo jàpp Juan Branco waa Mauritanie ñoo ko jàpp joxe ko wala waa BIP ñoo ko jàpp <laughs> ku remercié kuy tàcc waa BIP de sa waay sa ndey jurul ko baax dara defuñu ko tous tous tous. dara defuñu ko duur rek lañuy def ku la dàqool duul cot mais Macky Sall fan la mun ay nitam nekk ay doome xaram Macky Sall ab doomu biiral yi rek ñoo ko bëgg doomu biiral xool leen ñu baax ñu bëgg Macky Sall boo xoolee ba xool seen ndey seen baay daa seen yaay yi ci nax billaahi ku baax musul bëgg Macky sàll kenn du defaan mag sax boo xoolee ci juróom juróom-ñaari mam ku defaan mag xol leen ko doomi xaram lay doon wala bayam dañ ko bir ya-, yaayam ya-, bayam ci bopam doomu biral la wala mamam nek doomu biral wala bo xolé ay doomu biral lañ du rek la def fen rek Juan Branco ñu jappé ko Rosso Mauritanie woowaa bi ñu ñew taal seen ñu jox leen ñu ñew di dul ndayam nan ay ño japp Juan Branco té lool du yag sax léegi ñu bayiko ko en France jog nañ de <laughs> yenn yi sénégalais nga koy def de waa France jóg ils se sont levés Paul d'avocat français gis voyez, bind nañ tout wax dañuy ñëw fii nii de dañuy récupérer Juan Branco delloo ko France ay italiens sont fi indi fi bateau drogue ñu libéré leen ñu dem ay italiens indi fi bateau drogue Libérer leen ñu dem ay tëradi ay euh, ay belge ñëw fi indi fi bateau drogue ñu libéré leen ñu dem ñoom mën nañ jàpp Juan Branco <laughs> léegi ñu bàyyi ko mu dem yoonu léegi gis Juan Branco leen sax lijjantiwu leen sax Juan Branco faalewu leen barki Seydina léegi nga gis ñu bàyyi ko mu dem yoonam man maa la loolu Juan Branco du doomu biiral de du du ay comme am taan ñàkk jom de déedéet c'est un espagnol français un double nationalité la yore espagnol français benn dip dig jàpp ñu ko dañuy fen benn bip jàpp ko dig jàpp ko tous jàpp ko Rose Mauritanie lañ ko té joxe ko loolu yëpp ñun noo ko planifier j'étais la ñun ñoo ko planifié bu mu wara a jaay te xolal léegi ngeen dégg ko ma lan ko wax tak leen tak leen ko téré billahi wallahi Juan Branco delo rek lañ mën ci bu bunuñu duñ ko lek duñ ko nan mo leen gën ci nday gën leen ci bay nek un avocat international mo leen gën ci nday gën leen ci bay gën leen respect ñu gën ko respect xam ko ci ñi ñuy wuñ dara doomu sulara ak yi ni doomu mandikat yi ni ñi dañu mëna japp nday xwan Juan luñ ko mënal tous xool bàyyi band band lu ñu euh, xoolal bu Juan Branco toogee léegi booy français yi avocat yi ñëw indi fi ndey mat mat dix mille taxaw génn ndey Juan Branco rocc ko seen loxo delloo ko France mu toog nekk sa jàmmam yéen rek lañ ñimee def yii de eh, Antoine ñàkk jom kan la mun a tëj kan Antoine ñàkk jom doomu xaram bi doomu biiram dafa mun a tëj Juan Branco waaye eh, yéen ñuy sibile nañ toog waaye nañ lem seen pooju ndey yi nañ dem sukk ci seen pooju ndey yi toog Juan <laughs> Branco léegi maa la ko wax léegi léegi du fa yàgg du fa yàq léegi mu dem yoonam léegi du doomu biiral de du doomu biiral yi ak doomu xaraam yi nga xam ni seen bàyyi dañu doomu biiral lañ wala dara ñi ñi ñi Macky Sall di di manipuler ak fooy ak ñoom xool ñoom dañuy tàcc bib nii la demee dañuy duul bib jàppul kenn tous jàpp ko bien vrai que am nañ ay éléments ay gars yu nekk bib respect à mais buñ ñu jéem a gëmloo ne ay ñu bib ñoo jàpp dañuy fenn. j'ai des amis yu nekk bib j'ai des amis yu nekk bib billahi wallahi wa bib jàpp ñu Juan Branco dañuy duul tan rek la def fen rek la def toog di fen rek ngeen foog ni yéen mun ngeen fee toog ne yéen da ngeen dissoudre parti tëj Ousmane Sonko ay nañ jàpp Juan Branco nañ jàpp huit cent ay quelques jeunes <laughs> yéen boo leen toogee même seen bàyyi ci biir bàmmeel yi sax du ñu am jàmm dama ne duñ leen may jàmm tar fatal ay nii dinañ leen molotov ndayam ba ngeen plombé yéen xamu leen sax lu ñuy waajal du delloo ngeen internet bi yee pare gu ñu ngeen de dinañ molotov seen nday ba ba seen bàyyi génn seen bàmmeel yi nañ molotov seen bàyyi ba seen bàyyi génn seen bàmmeel yi di yuuxu pare gu ñu ngeen de tant que libéré wu leen Ousmane Sonko libéré les huit cent détenus politiques xoolal ñu Juan Branco moom ay doomu ay doomu baay mi nekk France dinañ ko réglé ñooñu ñun ñun ñun xajuñ ci ay xeexu xeexu ay gaynde Juan Branco buñ am nañ ciy tiit Juan Branco c'est un blanc gars yi tàppet lañ dañoo ragal tubaab amul benn tubaab bu nekk ci kaso yi nii ay français wala dara ñu jàpp la pour les international internationales mi ngi foofu noonu Juan Branco day dem yoonam ñun lijjantiwuñ Juan Branco am na doole ñu koy topp am nañ doole am nañ pouvoir ñun c' est des français c' est des espagnols c' est un avocat international Sénégal mënulul caapa ndayam Juan Branco dënd ndayam mënulu ko Juan Branco maa la wax ay góor jigéen ak caapa ta caka drogué fana mënuluñ caapa ndayam Juan Branco yéen rek lañ mënal dara Juan Branco du doomu biiral kon ñun lijjantiwuñ bu Juan laal ko mooy laal nga lu raw ñun xam nga kan lañuy lijjanti Ousmane Sonko mais Juan moom xoolal fu mu toog tiitul faalewu leen sax lijjantiwu leen sax il va sortir bientôt nan café Touba am dalu France am nga gis ko léegi muy def laay ba faalewu leen kon ñun ku ñuy lijjanti mooy Ousmane Sonko day génn par la force day génn par la force wala dinañ cocktail molotov seen nday ba ngeen plombé danañ kafe Touba kon dinañ café Touba sen nday ba sen sen nday yi ci seen bàmmeel yi nañ kafe Touba sen baay yi doo nga nekk café Touba nañ café Touba sen baay ba sen sen yi rek kon na gaay on continue le combat internet bi ñëwaat na vidéo yëpp dugg ci internet bi lepp lu ñu enregistré woon na dugg ci internet bi on continue le combat on lâche pas l'affaire demain lundi journée morte lañ lañ déclaré journée mo cocktail journée cocktail molotov journée bombardement journée explosion nañ boyal le Sénégal bamou tak lundi kon inshallah le rendez-vous c'est lundi voilà tay tangna demain du du du du du manam du euh, rassemblement bu donc préparez le ko inshallah bu lundi la résistance cocktail molotov Dur lañ ba ngeen fogg ne yeen mën ngeen gisul ay parti tëj Ousmane Sonko rey ay nit tëj nangam ngeen génn ci da ngeen di nax rek <laughs> vous êtes malade <laughs> sama gars guddi na nañ dem ni la affaire bi demee dañuy duul jàpp ñu Juan Branco bip jàpp ñu Juan Branco dañuy duul fan rek lañuy def what's up man on continue le combat man on continue le combat ok guys on continue le combat nañ doxaan seen nday ba ñu plombé Antoine ñàkk jom nañ doxaan seen nday ba nga plombé yow ak ñoom ñoom Abdou Karim Diop dinañ doxaan seen nday ba ngeen plombé pare gu ñoo yéen nañ dem gaa eh dam nañ tëddi parce que suba dina am ñu génn incha allah mais lundi moom mooy rassemblement général bi cocktail seen molotov nday ba ñu polombe cocktail molotov nday ba sulli seen nday ak seen bàyyi deey su sëf leen ay molotov ba seen bàmmeelu bàyyi sëf seen bam seen bàmmeelu baay gas ko génn sëf seen bàmmeelu bàyyi ay molotov sëf seen bàmmeelu nday ay molotov sëf seen nday ak seen kër yeeg ba junni molotov ak juróom-ñaar ñun ñu ngi ñëw ay ca gaay ku xewluwul ci café Touba gi doo texe ay ca xewlu ci café Touba bi comme Tony nee na café Touba la tudd ayca ñu xewlu ci café Touba bi barke café Touba ayca jëfandikoo leen café Touba kaas yi kaas yi na kaas yi mat na kaas yi mat incha allah lëndi ku naanul ci café Touba bi doo gor lëndi ku jëfandikoowul café Touba doo gor pasteefu kon nañ pasteefu nag te jël café Touba ku pasteefu dóor ñaari coup jël ndox guux ci café Touba bi dagan na kon ayca bisimilah Baay Faal yi ñu waajal ko lëndi incha allah cocktail molotov seen nday ba ñu plombé ñu wan leen ni ñun pareeguñu voilà en attendant one love man seen bàyyi duñ sarab ndayam laa wax bàyyi Antoine Diome du dëjjëw ndayam yaay Antoine Diome caga bu katt ndayam la dañ ko biiraloon moo jur Antoine ñàkk jom góor jigéen bu katt la nga naan ma ay moor ak bul kii moor data nday Macky Sall ak yaayam kooy bàyyi Macky sàll seen tuunu nday peace and love and mouth yeah dënn ndayi Macky Sall laa la wax xuuru baayu Macky Sall kooyu baayu Macky Sall data ndayi yaayu nday ñoom ñëpp nañ katt seen bunu nday la ay néew néew yi katt seen nday yi jur ay doomi biiral yi katt seen nday waxu néew seen néewu nday yàlla nañ katt seen nday seen yaay ak seen baay yàlla nañ ubbi yàlla nañ dëgg seen nday ñoom ñëpp ci safara bi yal na yàlla tëmbal seen nday ñoom ñëpp ci safara bi seen baay ak seen yaay seen dada nday naa fekk saaga néew waaye néewu nday Macky Sall néewu nday Antoine ñàkk tuunu nday eh gars yi continue lundi accélération cocktail molotov cocktail molotov briquet almet pneu essence taal sëf seen ay cocktail molotov boum bum cocktail cocktail molotov oto yeeg lépp jëfandikoo ko acca cocktail molotov gars yi ne cocktail na cocktail cocktail molotov xaraamul cocktail molotov defu la rebelle cocktail molotov defu terroriste France dañ koy jëfandikoo ñi ngi dox ay soxla Amérique dañ koy jëfandikoo Canada dañ koy jëfandikoo ñuy xeex dañuy jëfandikoo cocktail molotov kon kenn duñu nappee ni cocktail molotov kenn du ko jëf ñoo koy jëfandikoo ndayam ñun ñooy jëfandikoo nday cocktail molotov yi di ko sëf seen nday di ko sëf Macky Sall di ko sëf ndayam di ubbi bàmmeelu baayam di sëf ndayam ay cocktail molotov kon nag gars yi on continue le combat sëf seen nday ba ñu plombé ñu xam ne ñun ñun tam juruñu ñu nekk ay doomi xaram France di ko jëfandikoo te kenn du leen wooye ay terroriste ñu koy jëfandikoo seen terroriste seen nday laa la wax Anta ñàkk jom mooy premier terroriste bu katt ndayam Macky Sall mooy terroriste bu ubbi data ndayam ay terroriste yu katt seen nday lañ récolte ni di katt ñu naan ay cocktail mo seen cocktail molotov nday laa la wax Macky Sall saa yow ñu sa molotov nday ku katt sa nday nga yow Macky ubbi sa data nday nga un cocktail molotov seen cott nday dëmm yi ngeen doon criminels yi reykatu nit yi nooxóor yi lekkkatu nit yi jabaram ku katt la fal ndeyam caga bu dëgg ndeyam bi of ñoom ñëpp la ñu ubbi seen tafe ndey laa la puis seen love and mouth man right le combat continue on accélère la cadence man jusqu'à la libération de Ousmane Sonko et tous les détenus politiques foofu la ñu yem ak ñoom and mouth